mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel jullit yépp noo ngi bal xaq yépp tey balu xaq ñépp di bal xaq ñépp luñ xam ak luñ xamut luñ yëg ak luñ yëgut tey balu xaq ñépp luñ yëg ak luñ yëgut di ñaan yàlla yàlla noonu yàlla boole jëkkër di ndokkeel jullit yi it ci xew-xew bi nga xam ne ci lañu génne luñ ca def te yàlla tax yàlla na ko yàlla nangu moo xam muy aj aj màkka gi wala tabaski gi di fàttalante ak sunu bokk yépp lenn ci loo xam ne saabu ak jaamu yàlla dëgmal see moo xam muy jaamu yàlla farata lu mel ne xaj màkk gi wala weer woor weeru koor wi wala tabaski gi ci ñi nga xam ne ajiwuñu màkka xewu sunna daal la bëgg a wax danañuy faral di gis ab rawante ak jëkkante ak wanoonte boo xam ne ku amutum xel da ngay defe ne lii du jàll mukk wala bu jàkk bu jàllee te meluma ca ne diw mel rek àdduna tukki te fekk boo ca bëggee mel ne diw mel rek àdduna tukki moom moo tax sunu borom mi ngi doon wax ne bu dara xewee ak bu dara xewut lépp na ngeen xam ne àdduna ji ngeen nekk daa fees dell ak am po powum xol ak xol po moo xam ne yaram a koy def te loola dara jiituwu ca bu xew-xew yu ni mel accès nga gis kenn ku nekk di ca wane nu mu toll di ca wane nu mu toll ci ab juddoom nga xam ne la muy def day wane ne moom moo toll ni ci juddu moo ko waral mënut a def leneen ak koo xam ne it daf cay wane am am bu mu ëpple ñi ci des di leen wan ne ku bëgg a mel ni man dangay fexe ba mel ni man ma leen ëpple fuuf waaye nag suñu boroom nee na loolu lépp day mel ni rek nawet bi nga xam ne ñi ngi ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu saraxanu te yërëm nu te àggale ko jàmm mu mel nañu gënal dañuy gis ne saabu nawet bi melee nam war a mel àll bi fépp naat misaal moom la suñu boroom joxe buñ demee ba farmangu ba tool yi noppi bañ fat ko bu jaaz uppee rek day mel na ñax mustawert mooy noonu la adduna mel yaalamu annama alxayaatu dunya laibun wa lahu wa zina wa tafaxurun baynakum wa takaathurun fi l amwali wal awlaad jëru ko nag ndax ni mel mooy kamathali ghaythin ajaba alkuffaara nabaata summa yahiju fataraahu musfarran summa yakunu xutama yonent bi sallallahu alayhi wa sallama leeralal ñu ko nekk adduna moom kuy dund mënoo ñàkk a wut yi waa adduna yi wut mënoo dox ñàkk mënoo ñàkk a dox dox yi waa adduna yi dox waaye nag del xool fa ngay teg sa tànk ba waxuñu dem àllaaxira di réccu waaye fii ci adduna bu xew jàllee nga mën a nelaw noppalu ci am xel mooy tax a nelaw waaye noppalu it ci xalaat ndax gannaaw xew ba dara topp la ca dal ne nag képp koo xam ne mi ngi wut li waa adduna yi wut te teg ko fa mu ko war a teg sonnu ca waxuma laa di ko sonal keneen te bàyyi xel dëkkandoom bu baax a baax a baax muy moytu mu di ko dégg ci yenn yi bam di ko ci jëppi ku def noonu na ko wóor ne buy dajeeg suñu borom xar kanam bu leer nañ ñi lay am ni weeru fukki guddeeg yent di mel ci leer waaye nag koo xam ne bu waa adduna jógee mu jóg fas leen yéenee raw gën leen ko bëgg gën leen caa sonn ba ay dëkkandoom di ko xool ay gët nee na su dajeeg suñu borom day fekk suñu borom mere ko lool yàkkamtiwu dara waaye mi ngi ko doon xaar man talaba dunya xalaalan wa istiafaafan an il masalati wa taafufan min jaarihi laqiya allaha wa wajhu kal qamari laylat al badr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne tegaat ca ne su yow ëllëgee li tax loolu mat a bàyyi xel lool bu yowmal qiyaama yàlla day laaj ana sama gaaya malaayika yi ne ko ñan la ci sa mbindeef yi mu ne ña nga xam ne ba gaaya jógee di wuti di kër këri di ëpplante ak a wanewu ñoom dañoo toog fañ toog rek xam ne yàlla joxu leen ñu muñ ko muñ ko rafet mu ne ko ñooy ñan mu ne ko ñi nga xam ne rek seen loxo dajet seen gannaaw ba noppi ñu muñ ko te dëggu ca muñ gañ ko muñ luñ am jàpp ca ñu ne ko ñënga na de toog mu ne ñooñu de tey jii laay leen di dugal aljanna ñuy lekk ka naan lu mu leen neexe malaayika yi mel na ñu ko laaj na ko waa ña ca des nag ñu bari laña ña seen loxo gitul seen gannaaw nag yàlla na leen ña ngay toog di nekk sama ba rek la ak ñoom kii naan nu muy demee tey nan la war a demee kenn ku nekk nag xam na lan defoon ba tax mu naan nu muy demee tey yàlla na yàlla musal ca loola am na ku ñëwaloon sayidina Musa alayhi salaam gëm ko lool waaye yàlla boolewu ko nag ci ñi nga xam ne seen loxo gisul seen gannaaw saa su nañu fàttali ne ci wolof moom ku loxoom ca gannaaw mooy xiibon xiibon loxo yi na lap na la cax fu ko neex laal ci yaramam kooku mooy ku ñàkk ku yuru dara waaye ponkal mu ne fuut moom du fu ko neex laal ci o yaramam léeg-léeg sax buy sangu buy ra buy laal ndox am jafe-jafeem njàmpe gi dem fépp ndax mënut a geesu koo xam ne daa gëm Seydina Muusa lool te ku gëmoon yàlla ca jamono yooya mooy ñi gëmoon yonent yooya ba nit ñun niñ ba ñun niñ ñëwee bokk ak ñoom pas-pasu gëm yonent yooya daa ñëw ci Seydina Muusa wax ko boppam ne ko moom daal loxoom daa jël gannaawam lool xiiboon lool yaxi kese daanaka mu bëggoon nag mu ñaanal ko yàlla wërsëg ngir mu mën a dab gaay bu gaay yi dee jënd ay xari million ak million genn wàll ci tabaski gi di ko mayante ku la neex may ko xarum million genn wàll mu delloo la xarum ñaari million di la wan ne da nga xam ne dooma ko dàq kenn du jóg moom joggati lépp jënd xarum juróomi million joxe ko kooko delloo ko njukkal ne ko xarmee juróom-ñett lay jaar yóbbaale ko bay dem mu ne ko daa bëgg a bokk ci ñooñu wërsëg Seydina Muusa ne ko waaw lu wërsëg wu baree baree baree bare di so di xërëre yi sotti wala wuy toq mu ne ko xam nga ne kat wuy jur juri la bëgg may taataan ndab lu fees ma taaj feneen Seydina Muusa ne yàlla yaa ma gën a dégg waxe waa jooju may ko wërsëg wu bari yàlla ne ko fu nga ko bëgg a jariñoo mu ne ko ci àdduna yàlla ne ko dégg naa ko Seydina Musaa daal ca suba sa la xëy rek fekk ndongment yi dogalee waaja jëfandikoo ko ba kaalagam yoroon ak dàllam lañ ko xàmmee ndongment yi mooy bukki wala gaynde wala segg Seydina Musaa ne yàlla sa mbir mi ngi may bëgg a jaaxal nag ndax kii waxin la rek waaye yàlla ku ko gëm dara am du la jaaxal da ngay xam ne mën na lu nekk ne ko kii daa ñëwoon ci man yaakaar ma sama digg ak yow ma yaakaar la ca yow kepp yow dong ñaan la la ma la la nga ma la ñaan nga ne ma dégg naa ko xëy fekk ñu def ko nii ñu ko def ndog man yi jëriñoo ko ba dem seen yoon yàlla ne ko kat lu lu bari nga ko doon ñaan loo man na la fa mu ko soxlaa nga ne ma fii ci àdduna te àdduna moom lu bari xaju fi lu baree bari moom xaju fi moo tax bis bu mel noonu su ñëwee manis na koo tàmbalee sax ci ñi nga xam ne dañuy aji màkk am na doxu jamono gu indi léegi aj màkk yi sax daa wuute ci nit ñi ni ñuy demee ñii dañuy bëgg a dem màkka rekk ngir yàlla bëgg a dem képp joxe ji seen farata nuñ ko mën a amee baax na bu ñu leen ko mayee baax na bu ñu leen ko saraxee baax na fu ñu fa fu ñu fa demee fu ñu fa dalee baax na fu ñu fa dalee tam baax na am ñoo xam ne ñoom mën nañ ko waaye dañuy bëgg lu gën nekk yi nu gën wa kooko di nekk daal di fay ñeenti la kooko fay am ku ñëw jàggati jogget wa fay lu mat fukki yoon li ku ñaareel ki di fay ndax lan day bokk ci ñi mujj a dem bokk ci ñi jëkk ñibbisi nga xam ne du fa yàgg la muy bañ daal mooy ab coono la fay bañ moom daal jàppeetu ko ak jaamu yàlla léegi waaye diw ñoom ñi ngi dem rek képp moo ko tax di dem te fa diw ñoom di nekk it lay bëgg di nekk bu demee nga xam dañ naan moo gën a jege fii wala moo gën a jege faa bokk yi gën a jege fii ak gën a jege faa amu ci njariñ la Seydina Ibrahima waxoon suñu borom rek inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiina la sharika lah rek ci am solo jóg te yàlla tax rek waaye dal fii ak dal faa ak gën a jege fii ak gën a jege faa yàlla amu ci soxla mën naa am sax mu ëpp soxla ci ñi nga xam ne dañoo dem noonu rek dal fa gën a sori barab sangam ba ñuy wax di dox lu yàgg door a àgg fa ñuy jullee ji loolu sax na ne moo ne moo ne mu ëpp yool de ndax am na kilifa gu nekkoon fii sëñ Abdul Xaadir dëkk bu ñuy wax bustaan jàkka ja fa mu nekk ak kër gi fi mu ne ba léegi si noonu la mel fi mu ne nii am bis boo xam ne nag ngelaw lu bari da ko fa fekk tasanteeg ñuy nodd tisbaar mu génn di tase ngelaw li parasol bi mu yoree di xë di xëccoog parasol ba ku am kattan moo ko jëlal parasol ba yoral ko bañ ñibbisee nag ñu ne ko dañoo war a jegeel si jàkka ji ndax coono yi dafa bari te it guddi itam li dogee dafa bari lool mu ne leen gaa yu baaxee de daanañ rawantee ci maa la gën a sori jàkk sama jàkk moo gën a sori sama kër nga xam ne dox ay jéego jëm sa jàkka ji sax dañ koy wàññiwaale ci tuyaaba yi ñuy séentu suñu borom defal lañ ko ci jaamu yàlla gi waaye suñu demee ba nga xam ne dañuy fay lu mat fukki yoon li ñëpp di fay ngir bëgg gën a jege bañ tàmbali noddu gi nga dox ndànk dugg ci jàkka ji balaa noddu gee daanu lu baax la nag te noppale waaye li ñuy gën a am yaakaar mooy ñu dox kilomètre genn wàll door a julli si te yàlla tax leen a jóg parce que lu ma ta bàyyi xel la kon takasur ak tafaaxur am na ci aj gi ba ca dolliku tudd na tabaski gi léegi xarum juróom-ñetti million amee am na ku ko jënd ren yi mayee ko mayee moom amutub yoon bokk yi juróom-ñetti million ci xar mu baax muy jar fanweeri junni ñaata xar la ak mbooloo mi wër naan amuñu ay xar niñ toll xëy na nag moom moom alalam waaye alal nag loo ko moom moom tax nga sañ ko yàq lu ne sañ nga ko ci ba mu des yàq ko te xanaa xar mi ñi man gisuma ko waaye dama ko dégg xanaa du xar mi yor xar mii rek yor ñeenti tànk xanaa ak ñaar ak ak ñaari béjjën ak yaari nopp la ca dolli ko mooy ñi ajoon ñi ngi bëgg a ñibbisi bokk yi réew yi nga xam ne benn ci réew yi nga xam ne dañuy dund lislaam bu wér gu nekk mag yam ca képp ku nekk gën ko bëgg sa moroom ñu di ca rawante xam rawante wuñ ca alal buñ la waxee la ñuy def ci ku jógee Makka mën na laa jaaxal ndax ndax mën naa nekk wala déet. waaye fii safaan bi moo fi nekk fii safaan bi ki demoon Makka moom mooy def ci ñi mu fi fekk si kooku dañ koy ganale ndax lan di barkeelu ci moom moo demoon fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd ndax dem na ba ca dëkk bu yonente ba dem ca jàkk yonente ba ñu ne ko fee lañ def yonente bi ñuy barkeelu ci moom. di ko defal lu nekk waaye fii nag mooy safaan bi bokk yi am na si ñoo xam ne bu ñu ne leen bis sangam ngay jógee ngay ñibbi duñ dutuñ nelaw ndax liñ yor ko si néew jënd ko ci sërice dana mën a daj nañ ko war a joxam de ak lañ leboon bàyyi fi ndax gëmloo nañ ñëpp ne bala ngaa dem màkk dangaa war a fay say bor bu doo amee bor te dem màkk moo dem julli ci si sàkka jamay am kepp donte nag fenn képp la mën a amee waaye jullit bi ko mën lañ wax waaye buñ la mayee paas it war nga mën a dem bu fekkee bor ba am na di di digub ak ji ak segu ca waaye dañ naan naa leb lu bari te tàggoo leb lu baree bari bàyyi te tàggoo bu may dem benn tàggoo bi mën nga ne diw damay dem bi sàngam mu ne dégg naa ko bu dee sa ñetti fa nga ne ko damay dem bi sànga mu ne dégg naa ko ci suba sa nga ne ko suba lay dem mu ne dégg naa ko nga xëy sa war na ngoon lay dem lu baax la de tàggoo la de ndax bañ waa ji dara umpale ci moom waaye nag day mel ne ku ko jox dara it mu jël rawatina nag bi sàngam la ñibbi si moom am na ñoo xam ne dutuñ nelaw lenn ki soxna yi moom jàppeetuñ ko ak jaamu yàlla far dañ koy jàppe seen xewi aada yi dañ naan sama njëkki sàngam sama goro sàngam sama peccor go sàngam sama rakki borom ko sàngam sama goro nàngam nga xam ne moom aj gi moom bu ko mënoon séddale ci boppam dana ko séddale waale ci li muy jox seeni ñam koy jox ndax ñu sant loolu nag bokk yi mi ngi dugg mi nga dugal nit ci merom suñu borom ndax da nga gis ñu joxlante loo xam ne koñ ba mu jóge di dem ci koñ ñam fa romb ñépp seen xel a nga ca te moo ne mag ñi ci seenub yar daan nañ def bu ñu masaan soppi seen cin bu ñuy rosi sax duñ bëgg ko waa dëkkandoo yi dégg ko dañuy teg ci li teg ci suuf daal di cay def la ñuy def bu naree na bu naree wax sa kaw ñu uppaat ko ndànk ci nga daan gise xarankat dëgg-dëgg su xel metee lu ni mel day dem ci penc ma rek jiri suuf fu ngelaw lu jóge mu tàmbalee wër ci kër ya di nuyoo ak di xool wanaw ba xam nu mu demee moo tax bu ñu masaan togg ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne soo munta woo ñëpp wala nga yekkal ñëpp na nga yokk ñeex ma ba ku ne nga masal ko ca ñamu bëtam ak ñamu xelam waaye jël alal ju bare bare bare di ko jële ci ab koñ di ko yóbbu ci koñ ñu di ko fa yebbee yebbi laa bëggoon a wax rek fàtte ko yebbi su ko defee ñu daal di def ab géew ñee ñëw ñëw ñu naan jox na kii nangam jox na kaa nangam te waroon a dallu noppalu su fekkee aj na nam war a aja waaye daf cay far jële coono boo xam ne sax lu ne mën na ko caa fekk bu ko defee kon tabaski gi moom weesu na yeneen i xew yi diine mi ngi ci kanam ñu bàyyi xel ne yure yéen cay def am na jariñ ci bu àggee te ña ko war a jariñoo waaye amalut yàlla jenn njariñ yàlla li ko ci lim li ko lim ci soxla mooy nga def ko te moom rek mu tax la ca dolli ko it mooy nawetu ren ku ne xam na ne am na ay dang dang daay xanaa dañoo fàtte jullit baaw moo ne bokk yi jullit baaw de ci sunna yu mag yi la bokk ci ñoom korite ñoom tabaski ñoom jamono bu weer wi muuroo wala jant bi muuroo waaye nag dafa mel ne dañuy dem ba àgg ci ay daraja foo xam ne dañuy rusa ñaan yàlla ak dañuy jomb naan dem nañ ba tële dem nañ ba tële diggante nit ak yàlla ak jaamam bi yàlla ak jaamam bi amul mën ak tële yàlla ku ñuy ñaan la du ku ñuy poñe du ku ñuy taxaw du ku ñuy soññ da ngay torox la fi kanamam jaarale ko fa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jaarale moo gënoon a jege yàlla ñépp moo gënoon a doon xejj ci suñu boroom ñépp waaye su jamono masaan toll fii day woote ca pénc ma ñépp ñëw mu def jullit baaw moo ne bañ ko daan def day néew na luñ ko masaan def ba jóge fa te amut ñu fa tawte kon boog jaamu yàlla la koo xam ne àndut ak bokkaale àndut ak dara lu dul xam ne ay jaame suñu borom lañ liñ yor liñ soxla moo ko yor doyewu ko dara te mën naa am suñuy rëcc-rëcc yuñ xam ak yuñ xamut moom lañ ñu ko bëgg a peeseele kon musiba dal na yàlla nu yàlla jéggal yàlla nu yàlla yërëm te àggaleel nu suñu nawet te la cay ñore ñun ñëpp ñu bokk ko muurloo te bañ a doon ndox mu yàq fenn dara te it lu ndox mi bari bari it yàlla bu mu doon bàqub kenn ci noonu waaye bëgg àdduna moom mooy jur loolu lépp dem ba yàgg ñu ne yàlla moom sañal naa ko mënal naa ko wala ayaasu billah yàlla nu yàlla musa ci boobu pas-pas seydina ali yooyu nii di mbokkum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci gaa yu baax yi seydina ali moom daa mës a gént adduna ñëw ci melokaanu jigéen ju rafet rafet ne ko sama baay jox na ma la may na ma la mu xool ko yéem ko lool waaye bi mu ko xoolee gis na ne kii adduna dong la mën a doon ndax wër na ko wat gu nekk mënu ko jàpp mu ne ko jéggal naa la mu ne ko maanaam mu ne ko fase naa la fas saasa nadaamatul kusan yu nag dalu ko nadaamatul kusan yi mu ne ko fase naa la fa saasa daal di koy wan gannaaw adduna topp ci moom di karang-karang ak coow lu bari waa koñ bépp dagg ci biir gént gi Seydina Ali dem bay dugg këram jàll far dugg ci kër gi gannaaw moom da doon dugg da doon dégg turu Seydina Ali Seydina Ali Ali Ali Ali mu ne gàññ mu ne caraax saraax ci këram dugg fa ba mu xoolee xool gisut lu dul genn tur benn turki dara bu mu am ci àdduna sépp moom la si am àdduna ne ko wax nga dëgg de yow de xam naa ne mënaluma la dara ndax man ku yorul dara lu dul benn turki dara képp bu tilime nii mu tilime moom wax dëgg yàlla kooku taxuma jóg ndax man ku gaalam fees del lay wër koo xam ne du fóotlu lu bees rek lay sol kon boog bu ñu déggee bayit ya Seydina Aliyu sadd danañ xam ne bëgg àdduna mën naa dugal nit ci lu nekk ba mu dem bay jàkkaarloog suñu borom ba di ko rusa ñaan ba rusa jaar fa yonente ba daan jaar di am lan daan lam daan am ci yonente bi sa ci yàlla tabaraka wa taala sallallahu alayhi wa sallam yàlla nu yàlla wàññi te dëdduloonu àdduna te musal ñu ci tafaaxur ak takaasur ak po mi nekk ci àdduna muy poom xol ak poom yaram ba tax ñu xëy xëy ne nañ sàkk weneen yoon gu bokkut ak wa yonente bi daan jaar di ñaan yàlla yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin